asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa tarbiyatu wa taalim nuyu nañ leen siyaar nañ leen mbokki tarbiyatu wa taalim mu mel ni guddi tey mooy guddi màggal di guddi gi nga xam ni moo waral màggal mbokk yi ñu bëgg leen xam xamleeg ngir mu rëy moomu waaju mag jooju nga xam ni mooy maam xaadimu rasulullahi mbokk yi xam nga ni ci guddi googu la suñu boroom subhaanahu wa feeñu jox ko ndigal yam ko jox ci mu gindi jaam yi yóbbu leen ci këram gu tedd googu ñuy wax Tuuba te mooy aljanna mbokk yi ci la ko liyaaw yépp feeñu wax ko lañ ko wax mu wax ca bayitam bu rëy boobu ndeysaan ba ko ab ba mu génnee ci boroomam rekk yonent bi feeñu ko wali yi feeñu ko wax ak moom te ñi ko feeñu ñépp kenn dundatu ci woon ñépp nekk nekkatuñ ci woon kaw suuf mu ni xuqal bukaawu ala amwaatin saada ala saadaati amwaatin tabkil aradina alayhim ka samawaati mu ne ah ñi jara jooy daal mooy ñi nga xam ne dem nañ ci biir suuf asamaan di leen jooy suuf di leen jooy te du noppi ba yowmal xiyam moo tax bi mu ñëwee mu ni kon damay woote waaye nag day tànn ñi muy woo ñu ko maam Xaadim Rasuul ñi nga soxla Touba ñan lañ ci Touba gi nga woote jëme mu ni leen man day am ngir la maanaam maam maam borom Touba mooy siraatal mustaqim moom ci boppam jëmm ji mooy siraatal mustaqim mu ni wasful muridu saadiq nag mu ni ki ciy jaar nag nee na mooy murid saadiq bi mu ne melokaanu murid saadix nag mooy ki nga xam ni ba fa bëgg jaar ci siraatal mustaqim tarkuhu li iraada du am bëgg-bëgg day bàyyi ay bëgg-bëggam li ay ni man yafxalu ma ngir jëmm ki nga xam ne moom la bëgg dem ci moom te kooku mooy ki nga xam ne mooy faxaalun li ma lu ko neex moo koy def te mooy suñu boroom subhanahu wa mel ni dañ ko imaam xaadim kon di xamaguñu kon kan mooy murid saadix bi mu ne waman yurid say an si ne kii dem tuubaa te bëggu fa dara boroomam waman yurid wutiwul ci tuubaa dara lu dul yàlla waman an si waa koo xam ne bëggu fa dara lu dul boroomam yasil lahu dana jot boroomam dana yegg ci moom wa xayruhu aw loxte lu doon yiw dinga ko yen mu ne kon bi nga jógee jaar ci yoon woowu di siraatal mustaqim te siraatal mustaqim wax naa la ne mooy xaadim rasul xaadim rasul ci boppam mooy siraatal mustaqim mu la comme yaa ngi sóobu nag ci yoon wi bëgg a dem waslu duggal sóobul ci ban oto wala ban waruwaay ala yaday murabbi naasihi ci oto bi nga xam ni ki ko yor ab yarkat la ab tarbiyakat la ab defarkat la waaye naasixi ku lay laa ku lay wax yoon bi li muy bañ ak li muy bëgg wasluk ala yaday murabbi naasix kan sufuur ban boo xam ne yaquudu daf lay guide daf lay dawal yóbbu la yaquudu lil ilaahi daf lay yóbbu ci sa boroom waaw bi nawaasixi ci ay laaye biiram wax la ni ngay demee pour mën a toog sa borom pour mën a wax ak sa borom <coughs> mel ni nañ ko ni maam xaarim rasul ah ñun day ba tey li ngay wax xamaguñ ko mu ne waman taallaqa nee na képp koo xam ne danga dugg danga dugg ci ngir moo xam ne danga jaar ci yoon boo xam ne sëfoor ba nga ba nga dugg dafa jaar ci siraatal mustaqim maanaam sama sama ci man man xaadim rasul rek maa ko tax a jóg te mooy maay siraatal mustaqim mu jaar ci siraat boobu nee na dangay ci yàlla mi ngay wuti waaye neen boo jaaree ci boo xam ne jaarul ci siraatal mustaqim ne doo yegg mu ne tax mu ne wa man taallaqa képp ku ko képp ku dugg bi waasilin ci koo xam ne daanara yegg tuuba yëssil nee na da nga yegg waaye wa man taallaqa képp ko xam ni dafa dugg ci koo xam ni jaarul ci siraatal mustaqim mooy bi aksihi ca safaan ba in fasal doo dem fenn bu sa jëmm ci saaxir yeggee tuuba it yow fekk yeggulu tuuba kon tuuba mbokk yi baneen mbir la baneen mbir la boo xam ni du mbirum shahir waaye mbirum baatin la ñu ne ko maam xaadim rasul waaw dégg nañu nag wax ji léegi kon nag ban kilifa ak kan lañuy dem mu jàngal ñu siraatal mustax maanaam mu jàngal ñu kan mooy maam xaadim rasul wax naa la ne maam xaadim rasul bul jàpp jëmm ji la mooy siraatal mustaxim yow mi bëgg a dem ci yàlla mu ni la isil muriidu ndax isil bi ndax sëriñ bi lay tegtal wala ki lay tegtal ki lay giide pour nga dem ci yàlla isil bi yarkat bi laa yuriidu bëggul fil muriidi ci taalibe bi illaa wusala du dul na yegg tuubaa naaj yéen minal murid déeyaaleeg borom tuubaa te borom tuubaa moo yàlla najiyan minal murid maanaam ka ko tax a jóg pour mu yegg ci moom nee na fokk nga jaar ci siraatal mustaqim siraatal mustaqim mooy kan mooy xaadim rasul ki moom Touba mooy kan yàlla ndax Touba aljanna la te aljanna borom mooy sunu borom subhanahu wa moo tax isil murabbi yarkat bi laa yuridu bëggul bëggul. fil murid ci taalibe bi illaa wusool lu dul dafa yegg naaji yen di deeyaale minal muridi ci ki xamante ni moom lay wuti moom lay seeti te mooy borom Tuuba te mooy suñ borom waaw mu ni nag waman ala xayril ilaahi fa dalaka dalaka fa firru minhu fa innahu adalaka mu ni bépp sëriñ boo jébbulu tàllal ko say loxo ni ko jébbalu naa ci yow àdduna ak àllaaxira mu woon la laneen lu dul yàlla mu di la tegtal kaneen ku dul yàlla jëmm ju dul yàlla Sëriñ Tuubaa nee na fa firru minhu daw ko fa innahu kooku adalaka daf lay sànk waaye nag bul werenteeg sa sëriñ bu mu la wóoree ni kii ku maandu la ku jub la ku dëggu la wa man yu xaalif sayquhu fii maa amar ndaxte nee na képp ku wuute ak sëriñam ci lam lay digal yuxram jamia maa yaruum wa nasar lépp loo doon wut ci yàlla lépp loo doon mébat ci sunu borom sëriñ Tuubaa nee na dañ la ko xañ àdduna xañ la ko àllaaxira doo gisanteeg sunu borom nee kon bi nga sóoboo ci siraatal mustaqim ngir mu mag moom nga xam ni mooy maam xaadim rasul ngir mi siraatal mustaqim boobu nga xam ne mooy maam xaadim rasul boobu bi nga ci sóobo pour dem ci yàlla nag nee ci nii rek nga ciy doxe teggin yi kun nekkal mu'minan di ko gëm yàlla musliman di ko lu muxsinan tey rafetal di dox ci rafet di wax ci rafet waaw kun mu'minan wa musliman wa muxsina in rumta su fekkee dangay sàkku cheyran ab dox ci siraatal mustaqim lil ilaahi jëm ci yàlla tuf si naata ngay rafetal mu ne nag summa alayka maa ngi lay dénk ayuhal muriidu yow taalibe bi bëgg a dem Tuuba summa alayka ayuhal muriidu maa ngi lay dénk bi adabin ci nga taqoo yar ak teggin bu ma alayka ayuhal muriidu ah bi adabin isal hudat turidu su fekkee ni danga bëgg am xidaayatu te njub ngay wuti te ci sunu boroom nga jëm mu ne ah, taqol teggin su fekkee njub googu bëgg nga caa yegg kon mbokk yi spécial màggal eh, incha allah tey foofu lañ ci yem ak yéen bu subaa rek ñu àggale li ñu bëgg a wax ci kan mooy moom xaadimu rasul jox la ko ci maxrifa incha allah ci téeréem bu tedd boobu ñuy wax masalikal jinaan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf